kii déglu musique lii moom mooy payeur mi yombal xel musicien moom kenn waxatu ko mu ngi ñëw ci kanam waaye toog di déglu musique ba sa rongoñ di tuuru déglu musique ba mu ngoog bu ñu waxee nga bi ma frappé hmm? ngi nii ñu la buñ koy buñ koy jàng sa kanam sax pour yow da mel ni muus naan diwlin waaw mooy wax rek ida zikira allah wahda isma azzat qulubu alladina laa yuminuuna bil axira waaye nag wa ida zukkata alladina min ida hum yastabchiruun mbokk yi li ci gën a doyaat waar mooy mànd bi ndaw ñi mànd ci wàllu déglu musique mbokk yi dem nañu dem nañu dem sax ngir caaxaan ak foo dem nañu ba léegi sax dañuy jël alquran alquranu yàlla di ko dugal ci musique mbokk yi lii dafa ëpp alquran di ko dugal ci musique ci ay doomu jullit Hmm? te ànd ak loolu man li ma gën a yéem waxuma la ñun jullit ordinaire yi waaye mbokk yi ñu naan kilifa yi diine yi anañu lu tax mënuñu wax ci lii lii lu tax mënu leen metti lii lu tax mënu leen naqari ñu ñëpp ngi nii di ko dégg ay doomu jullit ñii di jël qul wallahu di ko dóor ci musique ñii di jël ayatul kursi di ko dóor ci musique dem ba sax koo xam sax du jullit du jullit mu ngi ci orchestre bi ñuy wax ba jël aay bi yàlla naan wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin mu koy dóor ci musique mbokk yi ñun ñi fi nekk kan ngeen dégg mu wax ci ana kan ci ñun mooy ki ko naqarlu waaw ñi ñuy waaye ay zo amaw diin moom duma leen tudd kenn ci ñoom du dégg mu wax ci waaw mais nag mooy li alquran di wax rek wa qaala rasula ya rab inna qawmi ittaxadu hada alqurani mahjura gaañi caaxaan ak foo gàdday alquran la ñu def alquran jarul leen dara dara dara dara te ànd ak loolu ñun ñëpp a ngi nii gënuma leen ko xam koo fi waxoon tey kenn ci waajuram walla koo fi waxoon tey kenn ci ab sëriñam ah naka sudul loolu wallaay di ko gis ni jant di ko gis ni jant waaye nag fii la ñuy nekk di xotti ormay yàlla di xotti ormay yonent bi di xotti ormay alquran lislaam bi mu ngoog ñun ñëpp ñu ni selaw waaye dafay wane ba léegi rek mbir mi mbokk yi dafa amagul jeexal ci suñuy xol rek affaire bi mbokk yi niñ ci war a mel lañu maanaam lañu ñu melagul moo war du ñu jaral dara waaye caaxaan ak foo yi nekk ci suñu xol ñu bëgg ko loolu moom ku ko laal ku nekk rek di ñu gis ni jant ay doomu julit jàpp alquran di ko foye ci mbiru caaxaan yooyu muy mbiru musique hmm? te mbokk yi xam nga yenent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam fukk la wax fukk fukk bu ñu tuubulee ba dee bu fekkee tuubuñu de mooy charte bi bu ñu tuubulee ba dee kenn du leen tere dugg jahannam fukk waaye nag ñaar moo ñu ci yitteel ndax moo dëppook waxtaan bi ndax dafa bokk ci màndargay yowmal qiyaam bi ci njëkk yonent bi nee na mooy tëggkatu tama te mbokk yi dañ naan àdduna ba àdduna de tëgg takk maanaam tëggkatu tama amul kenn ku gën a feesub caay-caay ndax imaginer yow nga jàkkaarloog jigéenu jàmbur wala jaboru jàmbur yore sa tama rong rong rong rong yaay yaay gisuma dara yow lan nga bëgg a gis hmm? rong yaay yaay <laughs> xam nga fekk fa bu luqi say bët wallahi la adim daggan na lan nga gëb a gis moo tax ñu mel noonu ku ci tuubul ba nga xëy li lay xaar a xam-xam nga ko ñaareel bi nag yonent bi nee na mooy musicien woykat mu ngoog te mbokk jullit yi e, li gën a yéeme mooy gis ngeen dañu naan wallahi e, musique moo gën a garaaw sax drogue xam nga benn kaasu sàngara benn kaasu sàngara boo ko naanee yow mi ko naan ci sa bopp la yem yow rek lay yàq mais gis nga benn kasetu musique àdduna lay yàq ndax li gën a doy waar te am solo ci doomu aadama mooy musique day génne kersa kersa musique day ratt kersa ba mu set wicc ci maanaam yaramu doomu aadama bi ndax da ngay xool dëggkatu musique léeg-léeg buy déglu da ngay gis mu commencé dóor baaraam yi hmm? du ci yam mu commencé di yëngal bopp du ci yem dem mu ngook ba léegi ji jikkoy golo après muy mujj nekk ci moom céppi céppi waaw nga gis xale yi léegi la boo leen xool ñuy seetaan euh, boo leen xool boo leen di seetaan ci tali bi ñuy fecc seen wàllu rab yooyu di def yi kenn xamul da ngay mais da ngay golo bu taxaw rek ngay gis parce que léegi sa amatu fa waaw ba tax na moom mi nga xamante ni mii nag mooy taxaw di la way wala di la wayloo ba tax mu kert sa jóge ci sa yaram. Euh, mandi loola moom ci jëmmi boppam sax mooy ki njëkk a te li gën a doy waar da nga gis ab musicien day taxaw naan gars yi tey ma lamb seeni maameey kii mu ngi saaga sa maam lan la am ci sa maam ba di làmb ma lamb seeni maam nga yuuxu parce que lan la mu ngoog xel mi nekkatu fi waaye mbokk jullit yi mooy comme ni ngeen ko dégg yàllaa ko waxal boppam ci alquranul karim charte nag mboolem lu doomu aadama di def naka sunul noonu lay tax yàlla baal na ko rek mooy bul ñëwaaleeg moom te mooy dee ci bàkkaar mbokk yi mu ngoog du sécurité tuub balaa ngaa ñëw mooy sécurité ci doomu aadama kon loolu ci boppam mooy li ci muccal nit ki ki koy def ak yow mi ñëw toog di leen déglu na ngeen xam ne yéen ñaar ñépp leen di muccal rek mooy ngeen sori ndax lu yàlla tere la ci ëttam bii waaye yonent bi nee na mujjub jamono gi ñëw nit ñi dañ koy daganal ba léeg-léeg sax da nga ci gis ay yeneen sax naan non bu dee euh, musique arabe yi dara nekku ci ay Umu Kulsum Umu Kulsum ak Youssou benn la Umu Kulsum boo waxee ñu naan Umu Kulsum euh, nu mu tuddati day tagg yàlla di euh, di kii ci yonent bi mais Youssou Ndour day tagg yàlla di julli ci yonent bi day woy yàlla di woy yonent bi kiif kiif ba tax na lépp araam du araab beeg du olof beeg du manjaago beeg du saraxule bi musique ci te gis ngeen musique balaa ñoo euh, euh, wala balaa ñu ko fi yemle woy ci lislaam ñaar la am na woy bu lislaam daganal ak bu mu daganalul woy bu lislaam araamal mooy bépp woy boo xam nit ki yaa ngi koy woy instrument am ci te gis ngeen mbokk yi li gën a doy waar gis nga borom njiir yi Malik Shafi Ahmad Ibn Hanbal Abu Hanifa ñoom ñooñu dañu naan musicien maanaam nga dee fekk yow ñu fekk ci yow benn jumtuwaay rek ci mbiru musique wallaay dañ lay bàyyi seen ñoom duñ la jullee duñu la jullee mu ngoog ba tax na bépp way boo xam dafa am instrument daganul ci lislaam nit ki di ko dégg donte nag nit ki ba muy way yàlla sax lay woy donte ba muy way yonent yàlla Muhammad lay woy donte la muy wax am na solo dagarul nga koy déglu waaye nag bépp woy boo xamante ni bii nit ki mu koy woy bu fekkee ne sax amul instrument de bu fekkee amul instrument waaye nag la ngay woy jubul la ngay woy baaxul te mooy léeg-léeg di ay woy jege ma jege ma séeri booy kaay jege ma yaa ma non subhaanallahi al azim loolu fa ban façon wax la ah donte amul instrument dagul nga koy déglu waaye nag bépp woy boo xamante ni bii alhamdulilah amul instrument waaye nag ay wax yu jub la wax yoo bu tàbbee sa nopp dina am lenn lum la yokk ci wàllu fulla fayda jom ak ngor ak dignité ak gëm ci sa wàllu diine façon wooy yooyu la listam lislaam dagganal nañ ci bàyyi xel